asalaamaaleykum mbokki internet yi safoo émission bi di taxaw seetlu tey nag dañuy jéem a yokkaat voice bi ndax kat xam naa ne démb am ngeen son boo xamante ne ni son bu xaw a suufe la li ko waraloon mooy émotion bi nga xamante ne ni moom la ñu doon dégager moom waraloon mënuñu yëkkati suñu baat comme ni mu daan amee ñu di si jégalu il se peut aussi que vent bi suufle tuuti aywa. démb waxtaan nañ dugg ci ay points yoo xamante ne ni vraiment ku nekk mat na ci bàyyi xel ndax kat du jigéen ñi rek waaye nag jigéen dafa di ne doole ji mu amee ci borom këram dafa diis ba nga xamante ne ni dafa mel ni benn pion boo xamante ne ni nag dañu ko defar mu dugg dam pion boobu noonu dafay am doole lool parce que nag moom mooy rey pion yëpp dem nekk ci biir di nga dégg ñu naan derrière tout un grand homme se cache une grande dame seen grande dame laa nekk du kenn ku dul yéen yéen yéenay les grandes dames donc nous avons besoin de vous bu gi demee ba xaaj yéen yéen a mën a ñu waaje si position bu mu nekk si lu mu nekk ngeen jëlee ko si dugal ko si leneen bu ngeen si xuusalee mu dugg yi tamit mun na loolu mu jur li nga xamante ne ni moom mooy loraange waaye nag jubluma si benn yoon pour ŋàññ jigéen xalaatuma ko sax bokkul si li nga xamante ne ni moom mooy sama philosophie ba léegi rek ñuy dem si ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy les vendeurs d'illusion comme ni ma koy waxee mooy maanaam ñi nga xamante ne ni dañuy teg xel indi loo xamante ne ni lu safaanoo la tey mu jot ñu xool suñuy bët fi jamono toll ak li nga xamante ne ni moom lañ soxla vraiment est-ce que bien matériaux yi Sëriñ Saaliwu Mbàkke yàlla na yàlla yokk ay leeram te taas ñu si barkeem ku nekk dégg na ay kéemaanam ba muy génn àdduna li mu fi bàyyi boo ko xaymaawee ci cent mille francs CFA rek la toll te sëñ Saliou nag bu ne woon ni baraamam rek lépp lu mu bëgg mun na ko am korook ba ñu ko indilee ab limousine ba mu jógee tool di ñëw dafa jël ngooñ yabaale ko ci limousine ba gis ne boo limousine bi yaatu na mën a dem ngooñ ñu daadee dindi li nga xamante ne ni moom mooy saisi ci yëpp li nga xamante ne ni moom mooy koñ dimension spirituelle Serigne Saliou nag mënuñu fa yegg du moom rek am na ñu bëri kilifa yu bëri bu ñu doon ñib tey jii ni duñu ñu bàyyi Serigne Touba du ñu bàyyi Cheikh al Islam du ñu bàyyi waa Ndiassane duñu ñu bàyyi Kounta du ñu bàyyi Omar yenn yi du bàyyi ñi nga xamante ne ñoom ñoo waa ko duñu bàyyi aussi waa Laayeen dama rek wax ki nga xamante moom mooy Serigne Saliou maam Rane macha allah sa sa maam Abdou Aziz ku nekk dégg na li nga xamante ne nii noonu la meloon si dëddu àdduna donc bien matériaux yooyu noonu à quoi ça sert vraiment ana la ñuy jëriñ su fekkente ne dañoo bëgg jël suñu àddina yëpp def ko si li nga xamante ne ni mooy daw ngir àddina tubaab bi ñu koy defaraatalal àddina moom muy yàq suñu àddina dafay jot nag ñun ñu taxaw ne ko bassa jeex na. léegi nag li nga xamante ne nii moom mooy jigéen ak li nga xamante ne nii moom la làmboo jigéen ak sutura bi nga xamante ne nii moom la yàlla def si moom mu nekk ku nga xamante ne nii ku yàlla dara jàll ku yàlla barkeel la ku yàlla sàmm la ku yàlla aar la ku yàlla tàmm tàmm donc moom bu fekkente ne ni njaboot gi si moom la ñuy gën a am yaakaar yar donc moom royuwaay la bu nga xamante ne ni pour mu roy dàq dafay nekk loo xamante ne ni du ñu neex donc nañu xool jigéen yi nga xamante ne nii ñu ngi si àll bi man de jigéen ji ma gis mu gën a am lii gën a luxueuse fii si dundam mooy armoire bu nga xamante ne nii armoire lu six battant la armoire lu xam nga luxe si village fii ak benn la lu double lii loolu néeg bi dañu fa dul sax loo xamante ne nii da ngay wax ne ay photo yi wala da ngay wax ne euh, micro onde wala da ngay wax ku lay fóotal mu ngi fi wala da ngay wax ne machine à am na fi nga gis ko am yooyu yëpp te ndeysaan mënul sëy loolu problème lay indi bu mag si dund bi donc nañu bàyyiwaat suñu xel ak suñuy xalaat si li nga xamante ne ni moom moo baax si ñun ak si li nga xamante ne ni si ñoom la baax ndax kat jigéen ñoom ñooy suñuy yaakaar ñoom ñooy ëllëgu réew bu ñu génnee si les vendeurs de religion nag dañuy ñëw si li nga xamante ne ni moom la ñu wax effet de li tax mënuloo ma comprendre effet